juróom benn balu fetal lañ dóor Pape Mbaye ñu gën ko xam ci mbaaya suñu sukkandikoo ci site internet bi di Dakar Live ay samba booy ñoo dugg ci kër góor jigéen bu siiw bii di mbaaya cambriolé ko tegal ko si agressé ba faaf jam ko juróom benn bal mbaaya nag comme ni ko ñu bëri di dàqantale dafa ràññeeku ndax ñaari mbir benn bi mooy li mu doon boroom ñaari tur bi ñu gën a ràññee ci Sénégal beneen bi di li muy yëngu lool ci réseaux sociaux yi lu ci mel fàttali rek nii fan yi ñu weesu rek amoon na fi problème bu rëy ak animateuru RFM bi di Ndoye Bane mi ko doon ngaañ ci rajo bi yàq ko lu mel ni xeme ndax orientation sexuelle maanaam góor jigéen bi mu doon te nekk sénégalais sexy nekk jullit gannaaw ngaañ yooyu nag bàyyi génn tontu menacé Ndoye baan di dina ko weer finalement kilifa yi jàpp ci ba wax ci fay ñu topp rek bile information ba xam fu Pam yi ñu gën ko xam ci mbaaya mujjee ak agression wam